salaamaaleykum internet Sénégal comme chaque année nag ñu leen indi la rétro buzz bi gën a faar ci année 2021 bi alors dañ koy commencer ak Wally Seck ak Sidi Diop ndax ci année bi génne nañu ñoom ñaar ñëpp ay EP Wally Seck moo njëkk a génnee ñu xëy gis Sidi Diop moom tamit génnee ñoom ñaar ñëpp ñu reprendre wayu Thione Seck ak wayu yu Ndour ba tey sax ci décembre bi ñoom ñaar génne nañu waat beneen way boo xam ne jur na polémique muy Rousse ak Ngalam artiste bi daal ñoom ñaar daal bëri nañu ay affaire lu ñoo xam ne bokk nañ ko ci année 2021 bi bu ñu jàllee ci loolu ñu dem si Abiba Abiba tamit amoon na benn vidéo bu ñu jotoon a génnee vidéo boobu ñu ngi ko ci gis muy xeex ak ex ma dem Diop Iseg donc vidéo boobu viraloon na nit ñi partagé woon nañ ko bu baax a baax a baax ñu jàll ci euh, année 2021 bi tamit am na loo xam ne marqué woon na ñu bari loo xam ne attristé woon na artistes yu bari loo xam ne bett na ñu bari mooy décès Thione Ballago Seck ndax dañoo xëy benn dimanche ñu tàggee ko mu am surprise bu mag bu mu jur ci euh, réew mi boo xam ne xalaatuñu woon ne Thione Seck dafa feebaroon ba ba ba ba sa génn àddunam bett ñu bari témoignage yu bëri euh, daal nañ koy def euh, artistes yëpp def témoignage ak autorité yëpp rendre nañ ko hommage yu bëri nag ku mel ni Momo Jean Youssou Ndour récemment rendre na ko hommage Omar Pène tamit ñu ngi seetaan clip bam koy rendre hommage kon nag euh, déception sec bi moom lëmbee woon na année bi et puis attristé na ñu bëri bu ñu jàllee ci loolu ñu dem ci Wally Seck Wally sekk nag ba papaam génne àddina amoon na diir boo xam ne toogoon na ko daal di daal di bañ daal di def dëyam mais ba mu def defee retour am nag joroon na coow lu bari ndax amoon na fi problème ak ustaas yi dem tamit amaat problème ak waa presse bi ci na mu demee woon nag Wally Seck ci biir seenam dafa amoon ñaari danseur am muy am Amady Badiane ak Ameth Thiou daal di def benn bisu bisu boobu nag ci coow lu bari bari ba ustaas yi jóg daal di porter plainte Wally Seck tamit porter plainte ne du baal kenn problème ak presse bi moom des na ba ba tey parce que presse bi dañ ko xaw a mere ndax retour am euh, daf ñëpp dañ cee jàpp def promotion bi ba mu des spectacle bi mu ne soxlawul presse ci événement bi donc presse bi merekoon ko ci loolu bu baax a baax baax a baax. Ameth ciw nag ak Amady Badiane nag geste boobu ñu defoon ci concert Wally Seck boobu noonu porté na woon na leen préjudice parce que jot nañ ci tëdd kaso ba ñu jugé leen euh, ba ñu génn donc bu ñu jàllee ci fee boobu nag dañuy dem ci Pawlish ak Fatou Laobé ñoom nag ñooy anti stress 2021 bi parce que Pawlish mu njëkk a def vidéo di tooñ Fatou Laobé Fatou Laobé tontu ko mu nekk jokkalante boo xam ne naka defoon na diir ba pare di reetaanloo internet yi mais mujjee nañu juboo ñoom ñaar bu ñu jàllee ci loolu dañuy dem si Ngoy Fall Ngoy Fall nag euh, kenn dootu ko présenté ndax ay oram ndax or yi moom euh, lëmbe na année <laughs> année bi bu baax euh, ndax dafa def lu kenn deful daal di def masque oram ci màggal gi daal di takk ay oram ba mu fees ñu bëri nag rafetlu wuñu loolu ndax dañ naan bésu Serigne Touba boobu noonu waruñu waruñu ci wane wu waruñu ci puukare wu waaye nag Ngoy moom ba tey deful sorti moom daal nee na ak ay oram nañ ko bàyyee ak ay daal. bu ñu jàllee ci loolu nañuy dem si Bril Fight Fort Bril Fight Fort ak Dieyna euh, euh, Balde Dieyna Balde. amoon na problème ak Diop Isaac 2021 bu ñëwaat ak Bril Fight Fort ci benn histoire bu ndaw rek entre couple bu ñu jote woon ba justice am ci yoon Dieyna Balde sax jot na cee tëdd. bu ñu jàllee ci loolu ñu dem euh, si sextape yi nag comme nag chaque année moom dafa mel ni dañoo tàmmal sextape yi euh, ak célébrité yi ku mel ni Duudu ak Ngóor Ndeye Ndiaye Bandaya mooy la danseuse de di Diop génne nañu seen i vidéo yoo xam ne ñuy wane seen i awra loolu daal ñëpp ñëpp daal di koy euh, ñaawlu mais nag génn nañ def vidéo daal di baalu ak askan bi bu ñu jàllee ci loolu dañuy dem si Omaro ak Ayo ñoom ñaar seen mariage yàggul ah coow lu mu ca mariage ba début ba ba fin ba ay coow la déjà si réseaux sociaux yi sax la ñu tasee say bi ndax Ayo Baldé dafa def ay révélation yu bari ci Omaro après Omaro daal di koy may baat loolu nag juróon na tamit euh, coow yu bare bu ñu jàllee ci loolu dañuy dem ci almet yi almet yi moom soxla wuñu commentaire yu bari parce que ñëpp ko xamoon a ah. almet yi benn astuce la astuce mystique on peut dire euh, bu juróon coow lu bari bari bari ci xale góor yi xale jigéen ñi euh, euh, ci almet yi daal nañu bàyyi noonu rek mu jàll bu ñu bu ñu bu ñu jugee ci loolu ñu dem ci xar géej gi Kukande moom tamit bokk nañ ñi gën a reetaanloo nit ñi ci année 2021 bi ndax dafa toog ne moom mën na xar géej gi pendant un mois buzz boobu di alimenté wu ci réseaux sociaux yi chaque jour ñu am ay vidéo ak ay photo yoo xam ne montage la ci Kukande waaye nag au dernier dafa ne daf ko reporté reporté bi nag ba tey joxaatuñu dat ah xar géej gi daal juróon na wax ju bari bari bari bari bari ci télévision yeeg site euh, internet yi voilà bu ñu jàllee ci loolu dañuy dem ci Baye Fall ak sànneex sànneex ak Baye Fall nag euh, ñoo bokkoon soleil levant euh, Baye Fall bët yi dafa commencé woon sëgg mu def vidéo di ñaan ndimbal ah ñëpp naan waa soleil levant jàppale wuñ ko Saneex daal di def vidéo daal di indi ay démenti daal di leeral lépp Baye Fall mu ne nii mu ngi faj bëtam yi pour euh, mën a gisaat delluwaat ci ay activités bu ñu jàllee ci loolu dañuy dem si Miss Sénégal Miss Sénégal nag euh, moom tamit lëmbe woon na année bi ci benn sortie bu benn Miss 2020 daal di def daal di ne dañ ko violé de dafa am doom boo xam ne xamul kan mooy papaam loolu nag sortie boobu jur ay coow lu bari ba ay révélation yeneen yoo xam ne Miss yi ñu ngi koy dund ci compétition boobu noonu Amina Badiane daal di def benn vidéo moom tamit daal di baalu ak ndax yoo xam ne nit ñi rafetlu wuñ ko woon. ba tey ñëpp jug xeexle Miss bi mais nag gisuñu ci euh, après suite. parce que euh, ba tey dossier boobu xamuñu ci dara xamuñu est-ce que dem na ci justice xamuñu lan la suite affaire bi demee en tout cas daal ñu bëri juwoon nañu jàppale Miss Sénégal bu 2020 bi fu ñuy jeexalee rek euh, mooy Marichou Marichou tamit amoon na buzz bu fi jotoon a jàll ci diggante moom ak bi bili bili bi nekkoon ci Potemagou ñu ngi naan euh, moom dafa am ak moom doom dafa génne génne tuumaal nañ ko daal lu bari loo xam ne naan dafa am doom ñoom ñaar amoon nañu relation amoureuse wuñ leen woon may ak yooyu noonu biri daal di def benn direct sur Instagram leeral lu bari nag ci histoire boobu noonu ci ay rumeur yooyu noonu alors fu ñuy fu ñuy jeexale mooy yu Ndour Youssou Ndour tamit toogoon na ci télé bi ne dafa def pose musicale ci mel ni ci spectacle yi la ndax jot naa gédde album boo xam ne mbalax la tudd si la rendre omage Thione Seck sax nag alors loolu moo doon fee yi fi jàll ci 2021 dañuy ñëw ci chanson yoo xam ne chanson polémique la coow bari woon na ci chanson yooyu noonu ku mel ni jaamaan kilibam nday nday euh, moo xam nekkoon na chanson instructive waaye nag clip bi ñu bari rafetlu wuñu ko ne euh, scénario bi daal jaamaan waru koon defee noonu ba féministe si jóg dal ci kaw artiste bi bu ñu paree si loolu tamit euh, mooy Akhlou Brick dañuy ñëw ci Akhlou Brick Akhlou Brick génne woon nañu chanson bu tudd Mawti Mawti nag ustaas yeeg yëpp génnoon daal di ñaaw lu woy way boobu noonu ne ne ne euh, artistes yi dañoo ëppal waruñoo dem di foobe ay yëfu yàlla donc euh, bu ñu bu ñu pare ñu paree ci chanson polémique yi dañuy dem ci euh, série yoo xam ne nag juróon na ñoom tamit ay coo ku mel ni infidèle benn séquence bu leen a defoon euh, boo xam ne kenn rafetlu ko woon tax na woon na sax ba série bi doonu woon jàllati ci télé bi ñu interdire ko ci télé bi voilà seen boobu ñu bëri ñaawlu woon nañ ko euh, ba léegi nag. alhamdulilah waa Evenprod am nañu solution ak waa CNRA juboo nañu ba saison trois bi ñu ngi koy waajal bu ñu paree ci série euh, infidèle dañuy dem ci cirque noir cirque noir tamit benn série bi ay jeunes doon jouer la ñoom nag waxuma la sax euh, seen yu obscène waaye tamit dafa demoon ba ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñaawlu ko ba xale yi sax ñi ko joue woon am na ñu ci jotoon a jàpp mais dañ leen a mujjee baal ñu jàll ci mariage yi 2021 yi mënuñoo lim yëpp rek waaye ñu wax euh, mariage yu ñu ci gën a remarqué mooy Aïda Samb Pendo Mami de la série Adja Elena de la série Adja Lala bu nekk ci maîtresse d'un homme marié Eumeudi Badiane Asma de la Sen TV Amina Poté Daba Boy Jami Gueye One Lyrical Omzo Dala Nana Aïdara Sir de la série Pod et Marichou donc amoon na yeneen mariage yoo xam ne nag jotoon na fi mais yii daal lañ ci dañ ci gën a remarqué pour euh, artiste de l'année nag Jayla lañ ko jox Jayla kenn dootu ko présenté daa clip am bokk na ci ñuy gën a seetaan ci YouTube bi moom moo jël artiste de l'année euh, Samba Peuzé aussi côté rappeur yi moom moo nekk artiste de l'année côté hip hop bi euh, moom Samba Peuzé moom la ñu choisir bu ñu jàllee ci album yi jot a génn ci 2021 bi nag moom Samba Peuzé mi ñu doon wax moo nekk artiste de l'année moom tamit génnee na album Authentistes génne na album Youssou Ndour génne na album tuddu Mbalax Jaaman tamit génne na album boo xam ne nit ñi rafetlu nañ ko nit ñi bëgg nañ ko seet déglu nañ ko ci rétro buzz yi fi gën a marqué ci 2021 bi xanaa di leen souhaiter bonne et heureuse année deux année bu ñëw daal dàq bu fi jot a jàll jaajëf